loola yéene kaay gi xëy dañu xibaar nan ñu Ousmane Sonko ak Barthélémy ak Malick Gakou dañoo leen a mujjoon a teg loxo waaye nag ci mujjantal gi daat nañ leen di bàyyi yéene kaay gi nee na Khalifa Ababacar ni ki démb naka mer na ba maara détaal yi nee xam ne moom lay def tigu ko fenn te bu yaakaaree lii mooy xupp Barthélémy Dias ba mu bañ a gañe fi nga xam ne mooy Ndakaaru ma ngi nax boppam Macky Sall dafa war a noppal boppam xam na ne leer moom doomu Jean-Paul Dias bi nee na tribunal dootu fa tegati tànkam yéen kay gi di Sud Quotidien nee yàlla baax ni ki démb maanaam daal en tout cas mars doon na xeeñ événement yi nga xam ne moo fi xewoon maanaam bu ñu waxantee dëgg ni ki doon na xeeñ ci diwaanu Ndakaaru yéen kay gi ñu xibaar naan ndaw ñi nga xam ne ni ki ñoo wàccoon ci mbedd mi maanaam jafal nañ taal nañ fi nga xamante ni mooy feeden bi taal ay pëna ba wax nag ne Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ak Malick Gakou notifié nañ leen seen arrestation boobe nag la ndaw ñi nag mel na lu xabtalo maanaam yëngu nag tàmbalee jafal Ndakaaru si lañ leen gaaw daal di libéré yéene kaay gi nee na pëccëxoo gu mag moo naroon a am journal bi de la témoin nee na Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ni ki démb soow nañ ba seen xol sedd lu toll si juróom-ñaare ci ay waxtu la ñu leen téye fi nga xam ne mooy camp Abdou Dias yéene kaay gi di Vox Populi nee na nag ñaareelu vague bi ni ki démb mujjuta am ba tey ci biir journal bi ñoom Ousmane Sonko dañoo tuumal nag takk der yi nan ñoom dañu leen doon dóor ay bal kawsu bal kawsu maanaam takk der yi au lieu que ñu sànni ay ma lacrymogène maanaam ay bal kawsu lañ doon sànni yéen kaay gi ñu xëy fekk fa njiitul Pastef di Ousmane Sonko moom nag nee na Macky Sall jàmm daal ñun danañ ko fekk si jàmm jooju waaye nag su bëggee nag aw ay ñun dim danañu ko fekk si ca ay woowu ak fitna jooju loolu nag dafa war a leer ci bopp Macky Sall bi yéen na waa benn bokk yaakaar ni ki démb ñoom tim yàkk nañu musiba ak ko nee na en tout cas li am ba dee sàll mooy Barthélémy Dias ak gendarme yi niki démb jokkalante nañ nag ay kàddu yoo xamante ni kadd yu diis gros mot Barthélémy Dias nee na gendarme yi daal bu ngeen ma ma ma wax ju jéggi taay joo xamante ni maara de tale yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba dee sàll mooy cas Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko loole nag mënut yomb benn yoon ci Macky Sall Assane Samb xëy jël xalimaama ne Khalifa Sall ak Karim Wade ñoom génn nañu leen ci làng waaye nag génn ci nag Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko loole di yomb ndax ñaar ñi ñoom daal seen xalaat bi yëpp mooy mobiliser wàcc ci mbedd mi yéen a kaay gi de la Tribune ak Walf Fadjri nee na bëccëgub démb bi maanaam yëngu woon na lool yéen a kaay gi de Libération nee na Mali Gakou ni bi ñu koy jàpp dafa daanu mbagg mi simmee ko yéen a kaay gi de réew mi ko di jee ne ko même ma yeggale ci xalim ak Assane Samb nee na nag état bu Sénégal ñoom seen bopp ñoo war a bàyyi nag maanaam di jëfandikoo justice bi nag di si xeex seen i adversaire a def justice a a kaay gi di sa News xëy di ñu xibaar naan ñu ni ki démb Ndakaaru Njaay jël jëw pëccoxo woon na loola ndaw ñi nag ñoom seen bopp ñoo jóg daal di fipp libéré ñi nga xam ne ñooy seeni leader waaye nag Yankhoba Diattara mi nga xam ne moo fi nekkoon di wax ak Moussa Sow ni ki démb ñoom ñaara maanaam fan la ñu nekkoon journal bi xëy di ko laaj waaye nag dañoo waaf yéen a kaay gi mi ko di jee ñu xëy fekk fa Seydi Gassama mi nga xam ne moo jiite Amnesty International section Sénégal nee na yàgg na yàgg na lool bi rupture de confiance amee diggante justice bi ak askan wi askan wi daal amatuñu confiance wala ñu baree bari si ñooma ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum yoon ci réew mi yéen kaay gi nag ba tey moom Seydi Gassama nee na justice boo xam ne mën nañu koo jàppee justice à double vitesse ba pare nag état bi nga xam ne ñooy jël seen loxo dugal ko ci wàllum justice bi loolee ci boppam moo mën a ñàkk ñi nga xam ne nag ñooy wax rado nee ma Sadikh Niass nee nag état bu Sénégal moom responsabilité am la mu organiser ay élection yoo xamante ni maanaam yu leer nañ lay doon yéen kaay gi dale ko xëy di xibaar naan ñu liste yeewi askan wi nga xam ne dañu koo nag nii la lool xewoon ca diiwaanu Matam ginnaaw ba Jibril Ngom ne mes ne menteña daal di daw ba pare déposé li nga xam ne mooy ay faux document yeewi askan wi nag mbir mi dañu koo jëloon ñi nga xam ne ñooy xaru ci diiwaanu Ndakaaru bëri lool ginnaaw nag bu ñu sukkandiku ci ab gëstu boo xam ne service anatomie pathologique bu hôpital Dantec